asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna tey nag damaa seet si waat ndaanaan ci kaw la ma daan def rek démb ak barki démb loolu laa indiwaat tey nee naa ne ma jóg ci di def loolu damaa jóg nag ngir laabaan te ku ne xam na ne tubaarkàlla macha allah su nee laabaan dañ ne way di taasu tey ma jógee na géej waaye ñëw seet si ndaanaan fii ci golfu koo xam ni Sénégal na nañu ko àdduna ràññee nañu ko ci xarañam adduna la ñenoon ko ci mën a liggéey man mën li muy def loolu saala bi nga njaay gàmmi de mbiram te ni njaay gàmmi yu ko njàllu mi ci am gaal ma seet si a nag muy sama bàjjan ma waxtaan bi ma laajee ma ko sama sant mun ma yow rek doom sa bàjjan laa man ko bàjjan loolu neex na ci loolu ma neen bokk loolu defe naa sedd sama ko te dara gënu koo neex ma seet si ko yaay bi maa ngi lay nuyu sama doom maa ngi lay fay bu baax di kontaan yow saala bi nga njaay gàmmi ni ma xuró ji fari ma ca daw mee nga woo ma ci loo xam ne ni nag lu ma namoon la lu ma fonk nag loo xam ne dama bëgg nag di koy def sax nag delluwaat ca ndax dama ko gëj gis nga indi laat ma ko saala bigee loolu muy laabaan te jafe lool te raal léegi loolu nag ma bëgg jaaba ñu jiin ko nag jiin ko jiin ko ba mu beex ndax bu daan laabaan dan daan jiin yaa bañ yaay bu tëddaan bu xale tëddaan dañu koy dóoral juróom-ñaari galan ci bool bi juróom-ñaari galan laa ci daa ci dëgg bu ñu baral laa baan rek nag andi démb rek tegaat nag ndax laa baan ni démb la ñu wax andi ko tey jii ndax ñu fàttaliku ko ndax kat dabar fakkaal la macha allah fekke naa démb fekke tey jii kon Saliou Bigué boo ma laajee ci lool dinaa la ci wax ba mu neex ay ca kon bàjjen ñoo wax ma ci lool dara ma déglu la ñëw cib lal ba dell mën a sàng sa bajoo ko gan bismilaay baasin ma dala jàmm ci rawum ndaw gu teel bismilaay baasin ma dala jàmm ci rawum ndaw gu teel nee na bismilaay baasin ma dala jàmm ci ndaw raw gu teel bismilaay baasin ma dala jàmm ci ndaw raw gu teel ey laay laay la laa ay xale bu réeree ba tale day jàll ci ginnaaw ndeyam ne xale bu réeree ba pare ndeysaan loolu foor na daa di jàll meer mag ni ndeysaan ndeysaan ndeysaan loolu neex na trop waaye ndeysaan xam nga damay duggeek moom sama biir waxtaan ci càkk ba damaa dégg ci biir laabaan ci càkk ba te bu njëkk ba foofu lan daan foofu bu daan laabaan xale bu jigéen dañ naan gis tubaarkàlla ñu naan càkk ba sa maam soloon moom sumi moom lañ summi tey jox sa yaay moom lan la takkal tey bàjjan tey damaa ñëw ak yow ci laabaan bàjjan est-ce que laabaan amati na ci réew mi ngi am waaye dañu ko dul biiral ndax xale yi daan am jom ñi ngi am jom ba léegi ndax xale yi nga xam ne nii caq boobee seen maam soloon jox ko seen ndey ba tey ñi ngi leen koy solal waaye nag dafa am loo xam ne nii xale yu góor yi ñoo ko tax laabaan amatut. xale yu góor yi ñoo tax laabaan amatut lan moo tax nga ne xale yu góor yi ñoo tax laabaan amatut. ndax su la mayee jabar nga yàkkamti ko bu ñuy takk yëf ya tasagul nga jël yóbbu sa jabar yóbbu ko hôtel. nan la ñuy laabaane nga tey ko ba semaine dañuy sa yaay day découragé day ru sa asaba doom ji day yóbbu nan ko ba semaine boo ñëwee du ñëwee day toog rek xa jël gegenaayam rek daal di séddale ay kiyam daal di dem affaire ji yeex ñun géwél yi ñu toog di nga nga ngippi xam nga loolu dafa métti te ñun géwél laabaan dañ ci daan am dañ daan ñëw ndax laabaan géwél la ko moom ak bàjjen lin lay geganal géwél yi bàjjen yi jaam ñoo ko moomoon waaw te laabaan bu njëkk Euh, nit ñi danoo fonkoon ak ndaw euh, dafa am mag ñu jëkk ñi boo masaan bu la masaan jébbale amoo ndaw dañuy wut përeex werex yàqu përeex boobu moom la ñuy ñëw takk ci buntu kër bi léegi soo ñëwee xam nga kon ndaw nit ñi dañ ko respecté woon dañ la koy takkal ci buntu kër bi ku ñëw xool doo dugg da ngay xam ni kii amul ndaw waaw bu njëkk ba yàq boobu moo daan joxe siñ que ni kii amul ndaw euh, ba tey sabar yi Eh, sabarkat yi li ko daan xame bu ñu ñëwee teg seen dënd boo tëggee sabar gi day bënn. sabar gi day bënn. waaw moo tax ñoom tam eh, léeg-léeg laabaankat ñëw eh, sexub këriñ di laabaan ndax bañ caa coroxaan am. Mm, ci biir loolu dama laa dégg nga ni takk sa jabar jël ko yóbbu ko hôtel. buñ xale yu góor ñoo tax laabaan amatul mais defe naa buñ la mayee nga xam ne kin la may xale la nga yóbbu ko te ne man sama doom may xale wu la yaayam du ko xam est-ce que yaay ji du loolu yaay ji dina xam loolu dina xam ne doomam jànq la moo tax laabaan bareetul mais tam laabaan dañ ko daan biral dañ ko daan biral ñoo xam ne sa doom ji am na xamal lan moo tax ñu laabaan xale yi nga xam ne amaguñu jëkkër xam nga ñoom soo tëggee laabaan ni ñuy ñëwee ngay mag ñii di wax ñuy dégg loolu tax ñuy am jom looloo tax léegi nag loolu defa defajuñu ko moo tax laabaan di raar te loolu day gàllaaj ci xale bii nga xam ne nii moom la nu may te it dafa baax ci xale yi nga xam ne noo ki ci tuusi gis seen morom tëdd ñu de koo wax lu baax ay bàjjanam di maye ay jaamam ñuy may ay jaamam loolu di cérémonie boo xam ne ay moromam di woy bu boobaa góor gu leen jigéen daa ah man damaa bëgg laabaan maa bëgg def ni sama morom diw xam nga daan ñaax xale léegi nag dangay waaru daal waaw bu bu njëkk ba bàjjan bu àjjalu xale mu laabaan ma defen ci biir kër na lañ ko daan defee ci biir kër ndax bu njëkk bi nga xam ne biir kër lañ daan tëddee wàccalu sa doom ci biir kër naka la ko mag daan defee ci ba génne doomam ba laabaan ko xam nga bu njëkk tey bu la mayee sa jëkkër say yaay day woo sa bàjjan mu dugg la sang la woyal baax bu ñëwee daal lay indi woddee am njoor lan mooy njoor njoor mooy sér bu weex bi lay wodde daal di lay sànge njoor weex tal andi wool na jab doomam daal di andi sa bàjjen daal di dugg ba ci néeg bi fekk sa jëkkër a ngi toog ci kaw néeg bi mu ne la sa jabar a ngi jébbal la sa jabar waaye nag sa bàjjen du dem de day loolu seen bunt bi tëdd ci bunt bi di xaar su déggee ko ne yuuxu moo xam ne doom jànq na mu sar xoole bu jëkk looloo amoon su ko defee ñu woo fajar gi mu yuux sarxole sarxoleem googu mooy génne nit ñi am na ñoo xam ne dañ daan jël ab pot wala gi di daan rëng rëng rëng rëng rëng di wër diw jël yeewu leen diw tëdd na sama doom wàcc na ndax man ci loolu laa gimmi man ci loolu laa xam jël waa jël moo tax ma jël bool bi ak paan bi ndax loolu lan daan laa baane bu njëkk bi ñuy demee ba muy gën a eh, kii nag la géwél yi di jël ay cóol teg ko ñu lalal xaalis bala ngay tëgg ñu laalal la ci cool bi ñu tuus dóor juróom ñaata ngeen lal ci tuus mi ah junni lal daan lal junni lan daan lal teg ci cool mi dëgg juróom-ñaari galan suñ tëggee juróom-ñaari galan yi dooko day kii looloo moo doon tus mi suñu ko defee ba pare nag ci léegi géwél yu jóge nag commencé laabaan yow daan jamono jooju yow daan nga dem laabaan ma la laaj sër sër boobu nga wax tey muy njoor ñu lalal la ko sa bàjjen yëkkati la ñu jox la say waaju sër moomu nag la mën a def ci néegu sey sër boobu day loo xam ne nii gàllaaj la gàllaaj la ki sëy te sër boobu si jëkkër rek moo ko war a gis ak sa yaay ñetteel bi sa bàjjan bi la laal li du sër boo xam ne danga koy jël saa yoo ko weeree mu yara dal saa yoo ko wanee ba bët yëpp kii ca kooko dootul bari doom ah dootul bari doom léegi nag su ko bàjjen bi ko yëkkati gis ndax bàjjen moo la yëkkati gis na ko ak sa jëkkër sa yaay doy na sëkk moom rek ñooñu rek ñoo ko daan gis kon sër boobu sa sa sa sa borom kër ay mbokkam kenn war cee gis sër bi kenn waru cee gis sër bi waaye est-ce que ko gisul la takkal duñ la takkal ndax bu dañ ko daan jël dugal ci mbuus wax leen seen sëru jabar ngi mais du lu nuy wone waaw du loo xam ne yow gëj ngaa gis sër boobu de sër boobu de gëj moo ko gis dem sama goro. ah sa goro ci biir kër. waaw maa yaako yaa yëkkati sa bopp. waaw maako ko yëb bi ko sama bopp daggali ko soccet. waaw. kon gis nga lu raar. maa gis gis nga lu gëj gis la mu gëj a gis. wallaahi te nag euh, moom itam jëkkëram dafa bari kersa. bi mu loolu amee dana ma yaay kom comme kii la rek bàyyi sama jabar rek ma téye ko noonu ma ne ko waaye man de xam naa sama xol sedd na ndax nag moom mu ngi woon ba càdd. te bi muy xale la fa demoon te bu mu ñëwee am nag ndawam ma daggali koy soccet ñoom ñaar ñoom ñu dee xale muy loo xam ne nii dafa raar te may wax xale yu jigéen ñi nanu sàmm seen bopp nag te te denc seen ndaw ndax ndaw dafa am lu muy def ci sëy day tax ñu fonk la sa jëkkër du la yab waaye nga wax sa jëkkër mooy cim kii bi ma ko mayee daa am dara xam nga tam loolu du sax. yow bàjjen yow mës ngaa laabaan ko amul ndaw. waaw. nga laabaan ko. waa dama lan moo tax nga def. seexu kër yi nag dama maa woote ma rus ndeyam. nga xam mu leer la ni kii amul ndaw nga dem laabaan ko ni damaa ah, nu may def géwél lu ne ngay gis yow nag saala bii nga njaay gàmmi lu ne di gis. Ah, nag am nga fit ndax fekku ni wóot nga dem di ko laabaan mu leer la ni kii amul ndaw nga toog fa di ko laabaan loolu ci fit la bokk. lu tax yow tooñ yow sax nga yàlla. tooñ naa yàlla ndax mi may dem xaw ma woon ne kii amul ndaw ba ma demee di laabaan ba ci digg laa gis xuloo ba ne ñoo la ca biir ma daal di yor ndànk dem ñibbi ma xam ne lii yaa quelque chose. maa ah, moom la kay. kooku def na lu rëy. ma dem kooku laay jéem. ngi ñëw